mbokku site internet aduna buzz tv dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar ki nga xamante ne nag moom mooy Alioune Tine daal dina yëkkati ay kàddu rek wax ci tension politique bi nga xamante ne moo lëmbee Sénégal moom la mu daal di xamle rek mooy nañ bàyyi yee fitna waaye nag respecté li nga xamante ne moom mooy àq ak yelleef doomu aadama ginnaaw bu mu seetloo ne ñaari at yi yëpp Sénégal daanaka daal mi ngi ci guddi gu bët setagul ndax coowal politique yi ci diggante opposition bi ak nguur gi nag dafa mel ni rek tulleek màlle jamono ji yi nag nee na nañ jéem a wàccee li nga xamante ne moom mooy jàmm ji te bañ a yee bépp fitna moom daal ma ngi sàkku ci ki nga xamante ne moom mooy njiital réew mi di Macky sàll nag mu arrêté loolu bém bu ko deful sax ngi kii di Ousmane Sonko naka daal di def rek ngir continent bi yëpp am jàmm ndaxte jàmm ci la lépp xam ci la lépp xàcc ku xam ne mbir mënu mel nag di Alioune Tine moom mi nga xamante ne moom moo fi nekk njiital groupe bi di jom Afrikajom cinq 55